saaxibil xatmi walkatmi walfaydi abil abbaasi ahmad attijjaani alsharif alxasaniyi alfatimi mbokk yi mbokk julit yi mbokki téléspectateurs yi suivre seen télévision Safina TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar macha allahu taala di ñaan suñu réew mi di Sénégal yàlla na fi yàlla dotti jàmm na ñépp àndandoo di ñaan jàmm ci Sénégal mbokk yi jàmm olof ne bala nga naan naam nekk fa bu ñu amul jàmm dara du sotti kon nag fa tabaarakallaahu jàmm nañ koy ñaan te gaañi dee leen sàkku jàmm te wér jàmm jàmm ko sàkkuwul utoo ko doo ko am de kon fa tabaarakallaahu nañu ut jàmm tey ñaan jàmm ndax ñu am jàmm ndax jàmm mooy lépp ku amul jàmm dara doo ko mën a def kon fa tabaarakallaahu kilifa diine yi yàlla na yàlla dolli seen sutura yàlla na yàlla gën leen a dëgëral ci darajey sayyiduna muhammad salaa waaye ñu ngi ñaal tamit kilifa aada yi fa tabaarakallaahu ñoom it yàlla sàmm leen bu baax a baax a baax a nuyu xalifa généraux yi nekk ci biir réew mi yëpp tabaarakallaahu macha allahu taala jële ci sëriñ Babacar Sy Mansour al xalifa buñ ko nuyee rek nuyu nañ mbooleem xalifa généraux yi rek ci Sénégal macha allahu taala waaye nuyu nag monsieur le président Alaaji Macky Sall mi nga xam ne yàlla moo ko fi teg di ñaan yàlla comme moo aye yàlla na ayam mat ci jàmm ak salaam mu dem ci jàmm ak salaam keneen ñëw jël ko ci jàmm ak salaam demaat ci jàmm ak salaam ñu koy doxee noonu rek ba ilaa yawmi din incha allahu taala ndax jàmm mooy lépp ñu nekk nag ci weer woo xam ne weeru gàmmu la ci émission boo xam ne émission sayiduna muhammad la kon fa tabarakallahu mbokk yi tey nag dañoo bëgg a waxtaane salaatu ala nabi ndax boo demee ci jàkka yi ñu nga naan mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril xalqi kullihimi te loolu salaatu ala nabi la kon fa tabaarakallahu salaatu yooyu nga xam ne ñu ngi koy jàng ci jàkka yi di ko jàng ci kër yi di ko jàng ci pénc yi lépp yàlla na ko yàlla nangu sotti ko ci kaw xeetu rasulillahi ba ku ci nekk la nga bëgg ci àdduna bëgg ko ci àllaaxira yàlla defal la ko ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax salaatu yi nag attan na ko te it mën na ko seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man salla alayya waxida sallallahu alayhi ashara njol màkk ne na ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon te mbokk yi bul fàtte ne salaatu ala nabi maulana subhanahu wa taala moo ñu digal moom yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi kon rekk waay ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ne na man yàlla ak samay malaika ñu ngi àndandoo di julli ci sayduna muhammad yàlla ni kon yéen ñi wax ne gëm ngeen yàlla sallu alayhi waay waay julleen ci sayduna muhammad wa sallimu taslima te ngeen sëmal ci moom kon yàlla ci boppam ak i malaayikaam ñu ngi julli ci njol màkka te duñ deñ julli ci njol màkka ba pare yàlla joxe ordre ne julli leen ci rasulillahi loolu rek doyoon na loolu rek doyoon na ndeysaan kon nag gaañi julli ci sayyiduna muhammad sallallahu wasallam mooy solution bi moo tax yonent yàlla muhammad nee na man salla alayya alfa marra lam yamut xatta yubashira lahu bil janna njool màkk nee na ku julli ci man junni yoon balaa ngaa génn àdduna ñu béggal la ci aljana moo xam da ngay dem bay sukuraat ñu wan la ñu wan la sa dëkkuwaay moo xam ci sa biiru dund ñu wan la sa dëkkuwaay ci aljanna waaye balaa ngaa faatu ñu béggal la ci aljanna kon gaañi salaatu ala am na doola de bari na doola torop yontu yàlla muhammad nee na man salla alayya waxida sallallahu alayhi asra wa man salla alayya asra salla allahu alayhi mi'a wa man salla alayya mi'a salla allahu alayhi alfa marra njol màkka nee na ku julli ci man benn yoon une fois yàlla julli ci yow dix fois nga julli ci man dix fois yàlla julli ci yow cent fois nga julli ci man cent fois yàlla julli ci yow mille fois njol màkka nee na ku julli ci man nag mille fois sa yaram xaram na safara waaw ne lam tamusuhu naar ne ki julli ci man mille fois safara du ko laal kon soo bëggee mucc ci safara ak tàngooram del julli ci rasulillahi booy julli ci sayyiduna Muhammad daa mucc ci safara waaye daa mucc ci tàngooru safara mbokk yi wa qaala sallallahu alayhi wa sallam njol màkka man nasiya salata alayya faqad axtaa tariqa aljanna njol màkka nee na ku bàyyi julli ci man bàyyi nga yoonu aljanna waaw yoonu aljanna boo ci suuboon jaar ca jëm aljanna nga jekk-jekk bàyyi julli ci rasulillah yi njol màkka nee na wàcc nga yoonu aljanna yi léeg-léeg beneen yoon nga nga topp kon la nga cay déggee mooy kuy julli ci rasulillah yaa ngi ci yoonu aljanna hmm? kon gaañi nañu julli ci sayduna muhammad salaa sallam wa sallim ala sayidina muhammad su la neex nga ne allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiyul mi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima su la neexee nga ne sallallahu ala muhammad su la neexee nag nga jël bu mag bi nag allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم salaatu yaa ak yeneen ak yeneen mais boo ci man da nga jàpp ci sa kurus di ko wax lu bari njol Makka nee na inna awla nnaas bi yowma alqiyaama aksaruhum alayya salaatan bu yowma alqiyaame bu ñu taxawee ci kanamu yàlla yàlla war ñoo xisaab maanaam yàlla war ñoo régler ku ci nekk li nga def ci àdduna ñu war la koo laaj taxawaay ba dana yàgg lool tàngoor ba dana tàng lool mbooloo ma dinañ bari lool buuxante ba bis boobu nag fa tabaarakallaahu ku bëgg sayduna muhammad fekk la ci situation bu tar boobu rocc la ci biir mbooloo yi dugal la aljanna sans condition ku ko bëgg ku ne dangay bari looy julli ci rasulillahi soo baree looy julli ci njol màkka bu yowmal xiyaamee njol màkk dalay fekk ci mbooloo ma la muy métti métti métti mu rocc la dugal laal janna lu mat a bàyyi xel la dëggaañ wa qaala annabiyu sallallahu alayhi man salla alayya fi kulli jumaatin arbaina marra maxa allahu zunubahu kullaha nga jël sa kurus julli ci man rasulillahi quarante fois rasulillahi nee na daañ la faral sa mboolem bàkkaar mbokk yi bàkkaar jamono jin toll daa yomb lool sa portable bi nga yor rek boo ko yoree benn dix minutes rek mën nga cee mën nga cee jël ay bàkkaar yoo xam fu mu jëfoo jëm ak moom parce que li ci nekk ca xaraam li nekk ci Facebook bi te xaram li nekk Instagram te xaram li nekk ci YouTube te xaram loolu lépp boo doon boo boo tàppe woon sax mushaf al alquranul nga tàppe mushaful quranul karim ngir bëgg am al kaamil booy xool lan lay njëkk a dóor mooy lu kenn mënta xool foo jaar ñu ñu rax ca loo xam ne ni yow taxu la war a jóg nga ne ci jàkk nag say bët yi xool ko boo ko xoolee toxol sa xool sa baax na mais boo xoolee fixé rek wala nga xool ko xoolaate rek ñu tamp ñu bindal la benn bàkkaar waaw loolu nag kan moo mën a mucc léegi télévision yi boo ko taalee nu ko noonu kon mucc ci bàkkaar léegi yombatul kon li lay dimbali rek mooy nga sax ci salaatu ala nabi sax ci istighfar sax ci laa ilaha illallah te mooy li sayyiduna Muhammad joxoon Seexuna Tijaani ne ko mooy sauvetage bi mbokk yi pour wax leen ne salaatu ala nabi dafa am doole yonent yàlla Muhammad ne ma min du'ain illa baynahu wa bayna as-samaa hijab hatta yusalli alayya fa ida salla alayya inxarafa zalika hija zalika alhijab wa amul benn ñaan bu ñuy ñaan dul ne ñaan ga mu ngi ci diggante asamaan ak suuf ñaan googu lay tax mu jàll mooy da ngay julli ci rasulillahi boo jullee ci njool màkka nag ñaan ga door a mën a jàll mais fekk julli woo ci rasulillahi ñaan googu nga ñaan du jàll moo tax mag ñi bu ñuy ñaan dañu ubbee seen ñaan salaatu ala nabi ñaan lañuy ñaan bu ñu paree tëjee ko salaatu ala nabi bu ko defee ñaari salaatu yooyu soxla bu ñu siq yàlla faj ko mbokk yi nañu julli ci rasulillahi anta baabullahi ayu mriin ataahu min gayrika laa yadxulu yow rasulillahi yaay buntu yàlla bi nga xam ne ku bëgg a dem ci yàlla te jaarul ci yow du yegg waaw jaaruwaay wi rek mooy salaatu ala nabi da ngay bàkk rasulillah yàlla kontaan ubbil la bunti nga dugg laajal yonent yàlla Muusa ba ko na sësee sa géej ga ak armée bu rëy ba bëgg nag faagaagal yonent yàlla Muusa ak lépp lu mu àndal Muusa def na lu ne géej gi na tekk waaye ban ne ko salli ala Muhammad ba mu jullee ci rasulillahi rek dóor yet wi rek géej gi daa xar fukki xar-xar ak ñaari xar-xar bu nekk nekk aw yoon ndax fukki giir ak ñaar ñoo àndoon ak yonte yàlla Moussa a fukki xeet ak ñaar ci gàttal fu nga dégg xeet bu nekk jaar sa yoon ndeysaan bi Firawn ñu ne ñëwee nag ba ci digg bi nag musaa dóoraat yet wi rek géej ga labal Firawn ak mboolem la mu àndal ñu faatu kon salaatu ala nabi mbokk yi muy solution bi dañ ci jàpp bu baax te bañ ko saaxa ca wa qaala sallallahu alayhi wa man salla alayya fi yawmin mi a marra qadallahu lahu miata xaaja sabina li axiratihi wa salaasina li duniyaahu njool màkk nee na ku xëy julli ci man téeméeri yoon cent fois nee na yàlla dina la fajal ah, ñaar téeméeri soxla soxla yi nag soixante dix yi trente yi lay faj ci àdduna mais soixante dix yi day bàyyi ba àllaaxira te nag gaa ñi soxlay àllaaxira moo gën a moo ëpp solo ko soxlay àdduna ndax àllaaxira moom ñaar rek a fa nekk safara mbaa aljanna tabaarakallaahu te nag ku fa dem ku ne lay sa yëpp mébét lay sa yéene lay sa bëgg-bëgg rek mooy dugg aljanna kon nag fa tabaarakallaahu dem ba foofu nag aajo yee nga bëgg yëpp ñu fajal la ko nga dugg ndànk aljanna ah mbokk yaakaar naa ne baax na de loolu baax na de li koy nag mooy julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qaala nabiyu wa sallam man salla alayya salatan waxida sallallahu alayhi wa malaikatahu ishrin ishrina marra walam yamut hatta yubashira lahu bil janna njol màkke nee na ku julli ci man benn yoon yàlla dina ànd ak malaayika yi julli ci yow cent euh, vingt fois maanaam ñaar fukki yoon te neen balaa ngaa dee ñu bégal la ci aljanna wan la sa aljanna kon mbokk yi nañu julli ci sayduna muhammad moo tax cheikh alxaaji si dabba waxoon sallu ala almuxtaari ummata ahmadin julli leen ci rasulillahi yéen xeetu rasulillahi su ngeen ko defee taxu da ngeen laq izan boobu la jamono maa shitum lu leen soob min ataahi ci ay mayam waaw ndax kat fal fi l qudsi sallaw xalfahu ba di riñaan bàyyee ko makkatal mukarrama dem baytul maqdis dekkal yonent yi wal xotti asamaan juróom-ñaar dem wuy ji yàlla keroog ca baytul maqdis yonent yépp àndandoo julli ci rasulillahi oh mbokk yi salaatu ala nabi dafa am doole salaatu ala nabi te mooy julli ci rasulillahi dafa am doole nañ ko bàyyi xel ndeysaan sayduna muhammad kenn du moom moo tax yusuf ibnu ismail an nabahani ci téere boobu ñuy wax afdalu salawaati ala sayyidi saadaat ngeen ji sala ngeen ji ay julli ci sang bi nga xam ne mooy sang-sang yi di rasulillahi ca qasida ba mu nga naan uj bil madinati talqa thamma karima xayral wara nasaban wa akrama xayma ne na nga jeng uj jengal bil madinati jëm madinati munawwara waaw talqa nga dajeeg sama foofu karima ku tedd lool xayrul wara nasaban wa xayma wa akrama xayma nee na boo dee madina di nga fa dajeeg sang bu tedd koo xam ne askanam moo ca gën moo gën ci àdduna bi yépp it sax kooku mooy sang-sang yi di rasulillah boo dee madina fekk ko fa nga dem ci ibnu yépp mu ne waxuma la sax ñi aji màkkatal mukarrama de waaye nga dem ba raw du rasulillah nga bërëngu ca raw du baax xalangu fa bërëngu bërëngu ba sa xol sedd nga jóg neena yow sa yàpp yaram xaram na safara laqad faaza man labba wa taafa wa zaarahu wa marraxa fi zaaka turaabi isaarahu laqad ca dëgg faaza na texe na laqad ca dëgg faaza texe na man ka nga xam ne dem dem na ba màkkatal mukarrama mu naan allahuma laka labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata laka wal mulk laa sharika lak ne na yow sa yaram xaram na safara ki dem ba màkkatal mukarrama wër kaaba ga juróom-ñaar yoon sa yaram xaram na safara waaye ki ñëw ba raw du rasulaay tëdd ca raw du ba di fa bërëngu rek xalangu ba sa yaram bi pënd ak suuf léegi nag amatul suuf waaye ba demee nga barkeel noonu rek nee na yow sa yaram xaram na safara moo tax alfa haasimi yi waxoon ne irxal li taybata la ta umma siwaha fa asaaka an taxza bi ruyati taha wa isa wasalta la aktaxil min turbiha huwa ismidul aynayni wa huwa jalaaha mu ne booy voyage di tukki bul dem benn dëkk bu dul madinatu munawwara bul dem Amérique bul dem Dubaay bul dem Chine bul dem Europe ne demal madinatu munawwara ndax yàlla mën na laa wërsëgal nga gisante ak Seydina Muhammad mu ne ko isa wasalta boo yeggee madina la ak aktaxil min turbiha na nga tus nga lu ci suufam sa ndax huwa ismidul aynayni wa huwa jalaaha mu ne huwa suufu madina ismidul aynayni wa huwa jalaaha ne na bët bi nga xam ne dafa wànnent bët bi nga xam ne dafa dafay xonq cooy ngir mettit ta gis waaw comme euh, lu mel ni Apollo nee na boo demee nga jël suufu madina nga raay ko sa bët sa bët yi day set wicc leer nañ naññ mujj wér pëlëng ngir kan ngir barkeek jëmm ja tëdd ca Madina yaramam di laalanteeg suuf sa te mooy Seydina Muhammad mu ne foofu na daaru xanaa fiha alghina wa kazal muna daarul xabibi qulubuna tahwaha mu ne kër googu mooy këru sopp ga mooy kër gu bëgg ga mooy kër ga ñuy mébét mooy kër gi nga xam ne sunu xol yi du fa jóg mukk di fa nekk yàlla ñuy dem màkkatal mukarram yàlla na ñu yàlla wërsëgale ba ñu aji màkkatal mukarrama toog ci raw rasulillahi sallallahu alayhi ay waaye ku ajeegul yàlla nga aji ku ajeegul yàlla na la yàlla wërsëgale ba nga aji toog ci raw rawdu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxuma la sax yegg ci rawdu ba waaye boo jubee rawdu bi rek climat bi ni muy changé ak odoor bay dégagé na xet gu neex da nga yëg ne rek fii yemul ak fenn cey Madina bu ndaw wala mooy nag wa safatu rrahmani xiiratu xalqihi fi ulwihi fi suflihi fi ufqihi fi ardihi fi garbihi fi sharqihi kon nag azimhu juhdaka lam takun maluma nee na yàlla mi nga xam ne mooy bind mësul bind ku mel ni jol màkka jikkoom yemul ak benn jikko melokaanu bindam yemul ak kenn melokaanu jëmmam yemul ak kenn moom seydina Muhammad ndax moo dàq ñépp moom rasulillahi le plus beau gars des beaux gars c'est Muhammadu rasulullah mooy nag moom mooy ki gën a kawe moom la yàlla tànn mu gën a kawe ca ña kawe waaw maanaam moom la yàlla tànn ca kaw moom la yàlla tànn ci suuf moom la yàlla tànn ci goxi asamaan yi moom la yàlla tànn ci suufam si moom la yàlla tànn penku moom la yàlla tànn soow mooy nag na nga màggal rasulillahi sa kéemtalaay kattan ndax boo màggalee njool màkk kenn du la yedd sa maam Sidi Xaaji Maalik ne ala azimu laylal wilaadati xisbatan iza lam yakun naxwal xaraami uduulu màggal leen juddu ko rasulillahi ngir sàkku yiw waaye rik waaye bu leen ci raxlu xaraam sallallahu alayhi wa sallam wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taazimi injaaxu sujuuni màggal judduk rasulillahi fajuk aajo la yiw la waaye tedd nga la kon góorgóorlul ba tàntal rasulillahi góorgóorlul bay màggal njool màkka ci sa kurus di def ay salaatu ala nabi di ko rëkk di ko yéene jaamu yàlla di ko def hadiye ci rasulillahi del bari looy def ay salaatu di ko yéene jaamu yàlla di ko def hadiye ci rasulillahi képp ku ko baaxoo di ko def bu ëllëgee yowmal xiyaam doo jaaxle de billahi doo jaaxle waxuma la sa yowmal xiyaam waaye adduna bi ngay njëkk a jekk xamoon na salaatu ala nabi li tax mu yéeme mooy booy julli ci rasulillahi di ko teg ci yoon doo ñàkk doo am naqaru xol doo am problème àdduna feebar yi bari du la yeb doo gaaw a jaaxle doo doo gaaw a tiit parce que salaatu ala nabi dafa yéeme daf lay defar hmm? mu ne laa asalahu laa adlahu cosaan njol màkk yemul ak benn laa adlahu njol màkk ni mandoo kenn mandoowu ko koo xam ne bi mu nekkee xale la tàmbalee mandu bi ko sun sunu eh, sayyidatna Halima joxee wenn ndeyjoor mu namp mu jox ko càmmoñ ba njool màkka lank lu tax parce que càmmoñ ba am na beneen xale bu fay namp te bokkul ci maanu nga nàmp sa bos namp bosu jàmbur jël sa bos jël bosu jàmbur lillaahi adulun bada fi taalikal umami hmm? ca xilaas ba mu ne nag moom sayduna muhammad ngëneelam tamit yemul ak benn yàlla mosul bind ko mel ni moom avant après it bindul ko mel ni sayduna muhammad salaa sallam asamaan sax ndeysaan bi njool màkka juddoo daa iñaanee suuf parce que xeeb na boppam léegi jàpp na ne suuf ak gën parce que gën ji mbindeef mu ngay daagoo ca kaw suuf mu am lu ko metti loolu ma Ousmane waaye nag mujj naa bég kontaan ba suuf mootu ko jaay affaire kañ bi njool màkkara ñaanee dem asamaan moo tax Mouhamadou Bouchir naan yaa xayra man yemmama al aafuuna saaxatahu saayan wa fawqa mutuunil ayni qurusumi sarayta min xaramin ila xaramin kama saral badru fi daaji min azulami sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla fayal nañu roy ci moom mooy solution bi nañu roy ay jikkoom moom rasulillahi bu ñu ko defee lépp baax te nag bëgg sayduna muhammad mooy teg sa tànk ci sunna waaye bëgg naa njool màkka te ku la xool sa comportement du gis ci ak jullit sa bëgg rasulillahi des na bëgg naa sayduna muhammad te ku xool sa xol gis ci ak soxor ku xool sa xol gis ci iñaan ku xool sa xol gis ci ak siis ku xool sa xol gis ci rëy ku xool sa xool gis ci naw jëf hmm? doo wax dëgg ràmbaaj tas ay diggante ba pare ne da ngaa bëgg sayduna muhammad ay eh waay dëgg-dëgg xoolaatal sa bopp ku bëgg njool màkka xolam day baax xolam day sel xolam du tilim ku bëgg rasulullah du yàq ku bëgg njool màkka du tas ay diggante ku bëgg njool makka dafay jéggale ku bëgg njool màkka day jaamu yàlla di dundal sunna jigéen su bëggee njool màkk dafay sol lu jot di muuray awraam góor su bëggee Seydina Muhammad day sàmm boppam di moytu baax a baax kon gaa ñi bëgg njool màkk yombul de bëgg naa njool màkk ci làmmiñ yomb na waaye bëgg ko dëgg dëgg comme ni ko yàlla waxee boobu yombut nañ ci góor góorgóorlu nag ku góorgóorlu yàlla jàppale la da ngay jéem yàlla jàppale la waaye bul toog fi nga toog naan neew bonee nii yàlla la soob bu neexoon yàlla tey ma baax du noonu borom lax dari nee na koo gis mu naan ni ma bonee ni yàlla la soob yàlla moo ma bonal baaxal ñee su ko neexee tey ma baax koo gis mu koy wax nitu safara la kon da ngay jéem a baax mooy tax nga baax bëri na ñoo xam ne dañ doon jéem bandi bandi lu ba xëy doon ay bandi ñu doon woyu woyu lu xëy xëy doon woyu ay woyu am ñu doon nekk nekk ay sëriñ ba xëy doon ay sëriñ kon nit li nga bëggan den danga koy nekk nekk lu ba nekk ko boo ci nekk rek yàlla jàppale yàlla yàlla doolu sutura doolu jàmm gàmm gi ñu dëgmal yàlla ñu ci yegg ak jàmm ak salaam lépp lu ci yiw yàlla ñu ko bokk ci dara yéene bi Moustapha ñu ngi ñaan yàlla suñu cofeel ci rasulillah yàlla na ko yàlla yokkuta nangul ñu ko yàlla nañu ko yàlla nangul yàlla nañu ko yàlla nangul yàlla ñu bëgg yàlla yalla ñuy xalaat yàlla fu ñu toll ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yi mu ngi noonu seen mbokk seen xarit oustaz Alioune fay ñu leen jox dig daje ci yeneen émission wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu